L'eau multimédia moi l'un des émission assalafou Qur'an nous sommes l'eau multimédia l'eau multimédia 27 avenue Émile Badiane angle Paul Hall Dakar L'eau multimédia spécialiste de informatique bureautique divers matériels réseau et accessoires, accessoires ci ay y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 Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 0404. 04. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu am mbégte lool ñu àndaat ci jotaayu asalafu ma alquran ci kër gi nga xamante ni képp kuy safoo alquranul karim am nga ci cër muy la maison du coran au Sénégal waaye di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy loo multimédia di ñu gunge ci jotaay bi nga xam ne jotaayu alquran al karim la ñoom ñu nekk di jaay lépp loo xam ne jëm na ci wàllu électronique ñu nekk faleef ca Sandaga jotaay bi weesu ñu xamaloon leen ni yàlla buur bi subhanahu wa taala sàmme alquran al karim ci diggante asamaan ak suuf tey ji nag nan la yàlla buur bi subhanahu sammi taala sàmmee wattu téere bi ba nga xamante ne dara mënu cee yokku dara mënu cee wàññeeku ci li nga xamante ne moom mooy kaw suuf yàlla buur bi subhanahu dafa sàmm téereem bi bi waasitati annabii sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal di jëfandikoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam travers yonent bi yàlla daal di sàmm téereem bu tedd bi yonent yàlla Muhammad daal di koy gàttandu ahsanal istiqbal gën jaay rafet te gën jaay mat atamma aamma akmala aghamma ala asma al istiqbal li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fidaahu abi wa ummi wal muslimina jami'a yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala fayal ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa xafidahu atamma xifd yonent yàlla Muhammad daal di koy mokkal gën jaay matuk mokkal wa qaama bihi xayri qiyaam daal di koy taxawee te taxawal Qur'aan al karim gën jaay matuk taxaw وبلغه احسن تبليغا ينتي يالا محمد داليكو جوتالي گن جاي رافيت گن جاي ماتوك جوتاي يونتي يالا محمد سو جوتالي وون القران جوتالي بيتي وار تيجي دون في نيك دي وخ القراءات العشر دون في نيك دي وخ الروايات وما الى ذلك جوتالي وكو ساتي بن روايه جوتالي وكو تي نيار داف كو جوتالي تي اي قراءات nga xamne sahaba yi ku ci nek am qiraa bo xamne daf la ko jaglel ba ñun ñu لن يكوتي تيري بي دفع أم أي شروط يو خمنتين وهدق فيها الأكي أركان لولي لن كجوتي فكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيث ما يختل ركن اثبتي شذوذه لو أنه في السبعة كم نغم لنولي لكو الإمام ابن الجزري وخي تطيبة النشر القرآن دفع أي شروطم أكي أركانم يو خمنتين مملن لب بواسطة النبي الأعظم سيد المرسلين وإمام خاتم الأنبياء يلا يلا بربي سبحانه وتعالى فين ينتبه صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا إله إلا الله nga gis ne xadis boobee nga xamante imam al buxaari nettali na ko mu jële ko ci muusa bnu abi aisha annahu sa'ala said bna jubairin rahimahullah mu ne ko lan mooy sa dégg-dégg wala lan mooy sa gis-gis ci waxu yàlla bur bi subhanahu wa taala laa tuharrik bihi lisaanak bul yëngal sa lammiñ lan nañ ci yàlla bur bi subhanahu wa taala nam said bnu jubair ne ko كي خمنا مو عبد الله بن عباس هذا المفسر هذا المؤول سبحان من فقهه في هذا الدين من ينتبه صلى الله عليه وسلم نكون كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه ما نم سنيو دان واتي تي مو وحي بريك نغيس مو يغاون تو دي ينغل اي تونيم مانام ديكو تاري تي سوف فقيل له يلا نكو لا تحرك به لسانك بول ينغل سلام من يخشى ان يتفلت منه لتحيرت بدانكو غاو ديف نك da dafa doon ragal am lu ko ci rëcc maanaam wax yu bi suy ñëw da ngay gaawantu mu nga gis mu koy tari lay lay jot a wàccegum maanaam léeg-léeg ngay ngay sànnit soo ne bismillahi rahmaani rahim soo ne bismi moom it mu commencé ca bismi ba nee na yont bi di di di baamu ci suuf yaxsha an yatafallata minhu shay dafa doon ragal am lu ko ci rëcc parce que amaana la laa ilaha illallah mbokk yi loolu luñ cay jàngee gis nga alquran maa ngi fàttaliku ca daara ja góor gi Isa Loum yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala fayal ñu ko su la joxaan darsa ba pare def la naan diw ba nga ñëw mu ne la jàngal naa la ko ba pare xam nga lu ci des bés ñëw nga jàngale ko laa <laughs> ilaha illallah loolu gis nga jàngaleb daara al majalis hunaka al ilm hunalika al ilm aqul eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yëg na amaana gi kóolute gi yàlla teg ci loxoom ba bëggul dara rëcc ko ca bëgg na koo jot jot gu mat mu daal di koy jottale ba nga xamante ne lan yazida te moom du ci wàññi dara du ci yokk du ci wàññi dara يخشى أن يتفلت منه شيء يا لنك لا تحرك به لسانك إن علينا من ميل لور جمعه أي أن نجمعه في صدرك من يل لور ما ذلك يدجل تسدن بممت سك واي وقرانه ان تقراه من ماكو يدجل بممت مانام يو بول سون <laughs> ناكو دجل سدن بي باغا موكل كو وقرانه ما ذلك يوم بلل غا ذلك واخ با نيت ني من تي جوت fa mu nek su ma la ko xasse ba defal noonu fattabi qur'ana topal la nga xamanteni mom moy mooy leen njàng bi thumma inna alayna bayana man leral gi nag pour mu leer nak an nubayyinahu ala lisanik pour leral ko ci sa làmmiñ nak man yàlla bur bi subhanahu wa taala la war la ilaha illa allah motax am ci borom xam-xam yi nak ñu xawa am ben ikhtilaf ci biile laaya am ñu wax ne lima yajidu lan motax tax sallallahu alayhi wa sallam wax yi bi su commencé waan rek nga gis moom muy gaawantu itam di tari ci suuf di yëngal ay tuñam tabaraka rahman lan ban ban sabab moo ko waraloon al ulama ixtalafu ci wàll gi mu nekk lan ixtilaafu taaddud lay nekk waaw waaw ixtilaafu taaddud la ixtilaafu tanawu dootul nekk ixtilaafu tidaad maanaam nekkul wuute goo xam ne wuute bu waroo la waaye wuute wuute bu limu la te wuute bu limu dafay gën a dëgëral tey gën a yaatal li nga xamante ne moom mooy xam-xam di gën a yaatal yi nga xamante ne moom mooy dégg-dégg ci am am ñu ne li lima yajiduhu min al mashaqati inda inda nuzul lenn ci borom xam yi dañuy wax ne parce que waxyu bi suy wàcc ci moom maanaam day métti lool lool lool lool sa nulqi alayka qawlan thaqila alquran dafa diis lool lool lool yaay Aïssa comme ni mu ko nettalee am na bés boo xam ne sedd dëkk bi sedd lool waxyu bi di wàcc ci yonte yàlla Muhammad nga gis ko moom muy ñaq di ñaq yonte bi su nekkaan ci kaw waruwaay waxyu di wàcc da nga gis waruwaay bi dafay bóof ci suuf ngir lan qawlan thaqila moo tax waaje wax ne gis nga baatu thaqila muy diis lu diis ñaari yoon la ñëw ci alquran al karim moo tax yàlla nee ne qawlan thaqila alquran gu diis yowman thaqila bés bu diis ku bëgg mucc ca bés bu diis ja jàppal ci wax ju diis ji ku bëgg mucc yowmal qiyaam jàppal ci alquran ma baamu ko ku bëgg mucc yowmal qiyaam yowma tagaabun jàppal ci alquran jàppal ci kalaam allah jàppal ci awthaqu shaafi jàppal ci amtanu amtanu habla gën jaay dëgër buum moom mooy alquran alkarim القران الكريم شافع مشفع بيوم القيامه دفاي رم تكم رم يلا بل وما مصدق القران دفاي لا يود تلمه وخيال يلا دغلكو من جعله امامه قاده الى الجنه كوكو تك سكنم دچا دچا ومت بيوبل با الجنه يلا دغل ومن جعله خلفه كوكو تك سغيناو قاده ساقه الى النار دفلي ومت ديمل فنخمد خمنتي موي سوار kon am ci borom xam-xam yi ñu wax ne li tax yonent bi daan yëngal ay tuñam ci di tari ci suuf mooy coono bi nga xamante ne moom lay daj su wax yu bi di wàcc fa yataajjalu li tazula minhu al mashaqqa saria ne moo tax moom mu doon gaawantu pour nga xamante ne coono yi wax yu boobee mën a euh, gaaw teggi ko teggeeku ko am ñu ne déet xashyatan minhu sallallahu alayhi wa sallam ay yansa ñu ne li tax yonent bi daan gaawantu la waral mooy dafa ragal am lu mu ca fàtte maanaam daf cay ragal a fàtte dara parce que xam na euh, amaana gi ci nekk aw yatafallata minhu shay wala am lu ko ci rëcc maanaam li tax mu doon ko gaaw di baamu su wax yu bi di wàcce neen dafa doon am lu mu ca fàtte wala am lu ko ca rëcce am ñu ne déet li ajli ay yatadakkarahu maanaam pour mu gaaw di ko muraaja awaale tabaraka rahman wa qiila min xubbihi iyaa am ñu ne déet bëgg bi mu bëgg alquran moo tax daf koy yàkkamte moo tax soo demee ci ibnul hajar al asqalaani ca ba muy sara téeréem boobee nga xam ne moom mooy fatixul qadir nee na yii lee asbaab amul waroo te amul sorewoo yépp mën nañ koo jamoo yépp mën na cee am ba nga xam ne bu ci nekk rek daal di waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gaawantu waxyu bi suy wàcc nga gis moom muy gaaw di yëngal ay tu tuñam di eh, eh, tare li nga xamante ne moom la jibril di wàccee ci moom kon li moom moo nekkoon suñu jotaay eh, asalfu ma alquran tey jii mu nekk tomb bu njëkk ci ni yàlla buur bi subhanahu pour xamal leen ni yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay jefandiko pour sam terem bi ñu andi li nga xamantene ne moy mooy addawaayi wala arqaam nga xamantene ba ca top ba ca top ba ca top nenañ len leen bi dinañ ci yaatal lol moy tax mu leer ci bop ñep ne ni la yàlla burbu subhanahu wa taala sàmmee terem bi moy tax ngeen xàmmee bërëb ya yàlla sàmmee terem bi ak jëm ya yàlla sàmmee terem bi moom moy tax ngeen mëna fonk yoyé jëm kon ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Hall Dakar. L'eau multimédia spécialiste de l'informatique, informatique bureautique divers matériel réseau et accessoires, i accessoires ci